sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag taala anhu digaloon mbooleem jullit ni ko boo xëyee lu mu néew néew néew na nga jàng lu tolloog ñett ci isib ci alquranul karim adim tilawatan li dal kitaabi walaw salaasatan min al ahzaabi ndax téere boobu nit ki di jàng di ko settantal dana tax jikko ya nekk ca biir téere ba mu man koo làmboo ba ndigali sunu borom yi mu di ko def moo taxoon sëriñ ba wax ni képp ku bëgg a jige sunu borom subhanahu wa taala na ngay jàng alquranul karim mbokk yi ragal yàlla nit lu mu ragal lu ne da koy daw nit lu mu ragal lu ne daf koy daw daf koy moytandiku waaye yàlla subhaanahu boo ko ragalee da koy bëgg a jige da daw ngir song ko moom it muy daw ngir laxasu la kon képp koo xam ni bëgg ngaa jige borom bi subhaanahu wa taala téere boobu mu ñu xoolloo woon wax ñu ni wàcce naa ci yéen ab téere boo xam ni ak leer la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal leen ko taskiya leen ci téere boobu la nekk ci biir lépp nangeen ko jëfandikoo ci lu baax wa ma aataakum rasul fa xuzuh wa ma nahaakum waaye loolu nag du am mukk lu dul nit ki dafa jóg fàggu ngir sàkku ji xam-xam ndax sàkku xam-xam moo lay mën a may nga xam li ne ci biir téere bi loolooy lan looloo tax mag ñu baax ñi ñu yàlla booleel te buñ ci tuddee ku mel ni cheikhul xadim dong daanaka dana doy dana yóbbaale ñépp ngir fullaam ak faydaam ak jomam ak bëggam lu baax ak roy yonent bi sallallahu alayhi wa ci léppam ak bëgg yàlla ak ragal ko ak yaakaar ko taxoon mu sant ñu ñu dem jàngi ngir lu ñu mën a am ci topp borom bi subhanahu wa taala kon doonub taalibe baax na lool doonub jullit gën lépp waaye nag doonub taalibe akub jullit boo xam ne day xam day xam li yàlla subhanahu wa taala wax ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ndax képp koo xam ni mu ngi lay moytandikuloo xam-xam jàppal ni kooku ku dara moytu la te iblis la loolu nag ku yàgg liir mbindum sëriñ bi danga ca fekk muy wax lu mel noonu naan képp ku la xañ xam-xam baa mu tere la koo jàng wala mu teel a sàkku ji nanga jàpp ni kooku moom seytaane bu mag la ndax seytaane dafa jàmmaar la woon ak sunu borom ni ko ñu bari ci say jaam dinaa leen wëlbati ndax yàlla daa rëddu rëddam ni lii mooy yoon wi yoon wi nag ñi xam ñoo ci jaar mu ni ko nag danaa fexe ba jubbanti ñooñee ba duñu xam yoon wi jaar ci waneen ñal mbokk yi dafa am ñu bari ñoo xam ni ci taalibey iblis lañu bokk dañuy tiital nit ñi ak di leen tee ragal yàlla subhanahu wa taala dana fekk sax nit koo xam ni day def lu baax bëgg a jóg guddi di julli mbaa muy bëgg di woor koor yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan def di digle ko lu mel ni que ayyaamul biid ak yeneen weer yi baaxa woor nit ki bëgg koo def waaye iblis mooy dox digganteem ak jëf ju baax jooje nga xam ni dafay mel ni lu ko koy tiitalal gis nit koo xam ne yàlla da koy wërsëgale alal mu warantaa génnee def ca yoonu yàlla subhanahu wa taala comme ni ko yàlla digale ba àgg sax ci war a mën a génnee azaka waaye dangay gis ni iblis daf koy tiital xamal ko ne ko sa alal ji loo ci génnee duutoo ko jotaat ñàkk nga ko ndax seytaane mooy def loolu nee na ñooñu nag mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy jax-jaxal doomu aadama bi ba tee koo def lu baax moom la alquran di leeral ni innama dalikum alcheytaan yuxawifu awliyaa yàlla nee na loolu seytaane la ñoom ñooy tiital nit ñi ñooy tiital ñu baax ñi waaye nag na leen na leen bir ni bu leen leen ragal mukk na ngeen ma ragal man yàlla su fekkente ni nag ay wëy gëm ngeen bu fekkente ni imaan lalu na ci yéen nga xam ni kon doomu aadama bi ngir mu ragal yàlla subhanahu wa taala faw imaan ne ci moom imaan googu nag moo koy may tawxiid tawxiid mooy nga wéetal sunu borom subhanahu wa taala kennal ko xam ni moom képp mooy buur bi nu war a jaamu waaye waruñoo jaamu beneen mbindeef bu dul moom mooy buur bi nga xam ni bu nuy yaakaar ci moom la ñuy yaakaaree mooy buur bi nga xamante ne si bu ñuy sàkku ndimbal ci moom la ñuy sàkkoo ndimbal mooy buur boo xam ne su fitna amee mbaa balaa am ci moom rek la ñuy istixaasa ci moom la ñuy ñaan nga xam ne kon doomu aadama bi dafa war a boole diggante al alxawf ak arraja xawf mooy ragal yàlla subhaanahu wa taala te bañ koo daw waaye nag nga boole ci nag yaakaar ko xam ni yërmande ci sunu borom subhaanahu wa taala képp la mën a jóge lorit ci sunu borom képp la mën a jóge njariñit sunu borom subhanahu wa taala rek moo ko mën a joxe comme ni ko cheikhul xadim waxee woon an nafu wa durru min arrahmani laysa min albidaani wa suudaani bu kenn jàpp ni nit mën naa lor moromu nitam te neexul borom bi subhanahu wa taala nit mën naa jariñ moromu nitam te neexul yàlla subhanahu wa taala daa am bis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog ak abdullah ibn mu nekk xale bu tuuti mu ne ko kaay ma sànni la ay baat bokk na ca baat yam ko sànni dani ko umma bi maanaam nation bi société bi yépp buñ taxawoon bëgg laa lor te neexul yàlla kenn mënul ci yow dara ndax kul lan yusibana illa ma kataba lana waaye tamit umma bi yépp ak nation bi yépp suñu taxawoon bëgg laa jariñ bëgg laa yëkkati bëgg nga jiite fi bëgg a yokk sa daraja te neexul yàlla loolu du am zalika fadlullahi yutihi man yasha kon ñu xam ni yàlla subhanahu wa taala dara safu ko te kenn mënu koo natt ci dara ndax faalun lima yurid lu ko neex lay def te buy def du tàggu kenn du yëgal kenn kon li war ci jaam bi diggante ak moom mooy mu ragal ko moytandiku ko te di ko yaakaar yàlla melal nañu ñi nga xam ni dañoo ragal yàlla subhaanahu wa taala manzila yi nu am yu kawe yi nga xamante ne si képp kuy jullit bëgg nga egg ci manasil yooyu nga xam ni yàlla leeral na ñoom nanuy mel ca suuratu zumar ca njeextal la ba muy wax ni bu nu wammatee ñi ragal yàlla subhaanahu wa taala jëme leen ajjana ñi leen di accueillir ñi leen di recevoir nga xam ne bu nu ñëwee da leen wax ne salaamun aleykum tibtum fadxuluha xaalidin lii ngeen doon wër lii mu leen taxan di sonn ci àddina lii taxoon ngeen moytandiku tere sunu borom yi subhaanahu wa taala lii taxoon ngeen toppoon ay ndigalam lii taxoon ngeen ragal ko kon nag dugg leen àjjana te sax fa ba faw kooku bokk na ci martaba yi yàlla nañu ko sunu borom subhaanahu wa defal te booleen ci muttaqin yi yàlla wax ni képp koo xam ne ragal nga ko boole kook di ko yaakaar te xam ni ëllëg di nga dajeeg moom te danga nga jàkkaarloo ak moom ndax danga toog ca maqaama bi nga xamante ne ca la lay laaje nga tere woon sa bakkan bi nga nekkee ci àddina ci lépp loo xamante ne si ay ñaaw teef la ak bëggi-bëggi bakkan te bokk ci li sunu borom subhanahu wa xaraamal yàlla nee na ñooñu mooy ñi ma ragal dëgg te ëllëg aljana laa leen jëmee wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an il hawa fa inna al jannata hiya al mawa ki ragal yàlla nag borom bi subhaanahu wa taala dafa leeral ni ñaari ajjana lay am borom xam-xam yi maase nañ ci ni ñaari ajjana yooye mooy genn gi ci àddina lay doon ga ca des mooy àddina di ji nga xam ne moom la jullit bu nekk di sàkku te moom lay yaakaar ëllëg ana nan lay amee àjjana ji nekk ci àddina te moom lépp loo xamante ne si neexitalu ba bakkan la lislaam tere na ko ba da koy sori ndax jàpp na ni loolu mën na koo gàllankoor ci jaamu yàlla subhanahu wa nga xam ni ñu baax ñi ñi fi nekkoon dañ daan def sax uzla la mooy lan daw nit ñi ndax jàpp ni nit ñi mën nañ leen a gàllankoor ci jaamu yàlla ak wéetal ko daw ci àll boo xamante ni si jàpp na ni kenn nekku fa kenn mësu koo dëkk nga ñëw gor ko taxaw fa di jaamu yàlla ngir ragal ko la Sëriñ Tuubaa waxoon ca Tuubaa ba mu koy gor mu ñaan ko ca Matlabul Fawzayni ni na ko yàlla def daaru tuqaa muy kër goo xamante ne si kërug ragal yàlla la nga xam ni kon yaakaarul woon kenn fekk ko ca koo xam ne day def sofaanu moom la muy def nga xam ni kër la ngir jaamu yàlla subhaanahu wa ak ragal ko ak yaakaar ko mu ni nit kooku nag àjjana jooju muy am ci àddina dafay yëg ak moom bànneex goo xam ni ki ngay gis mu doon buur mbaa mu doon jëwriñu ci dara wala mu jiite ab entreprise bu rëy wala mu doon ab milliardaire façon dund gi muy dund ci bakkane yow nga gis ki ki ragal yàlla moytandiku yooyu yépp nga xam ni daanaka la muy lekk buñ la ko joxoon ñeme woo koo lekk ndax naqari yére ya muy sol day woyof lool fa muy dëkk fa muy fanaan buñ la ko waxee doo nga weddi ko moom la muy yëg ci yaramam ci ak bànneex ak saada kay dund ca lu bànneexe loolu du ko xam salafu saalex ridwanullahi taala anhum muy ñe yonente bi salallahu alayhi wa sallam yaroon muy ña nga xam ni seenu melokaan moo nekkoon lépp jox ko borom bi subhanahu wa taala ni ko Serigne Touba melakaanele ñoom ci xasidaam googu tudd xoqal bukaaw nga xam ni ñoom asamaan moo leen jooy ak suuf ngir ñàkk gun fi ñàkk nekkati ñooña nee nañu ñoom yëg gi ni yëg ñoom jaamukatu yàlla yi ak ñoom ragalkatu yàlla yi nee na ñoom li ñuy dund ci bànneex ak yëg gi ni yëg sunu borom subhanahu wa bu ko buur yooyu xamoon danañ gàddu jaasi ñëw di xeex ak ñoom ngir nongu loolee ndax ñoom jàpp nañ ni àjjana ji nekk ci àddina moo gën a kawe bànneex yoom ñi nu nekk waaye nag duñu ko xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa toog a saxaaba yi mu ne ay boo leen xamoon li ma xam la daxiktum qalilan dingeen ngeen reetaan lu néew walla ba kasiran di ngeen jooy lu baree bari bari waaye nag malheureusement yonent bi sallallahu alayhi wa fa mu egg ci borom bi subhanahu wa taala ak na mu ca mel ak na mu ragalee yàlla ak na mu toroxaloo ci kanamam ak na mu koy yaakaare ngi na mu koy jooyloowee ba yàlla digal ko ni ko wala boog dig ko ni ko danaa la jox lu ma joxul kenn danaa la may di la jox ba nga ba nga gërëm ba nga sant ba nga ni doy na waaye téewut malgré lépp téewul keroog la gën a ragal yàlla subhanahu wa taala keroog la gën a daw ay tereem keroog la ko gën a yaakaar keroog la gën a tiit ci boppam kon téeréem boobu di alquranu karim dañ koo war a settantal la ca nekk ci ay njariñ ñu jël ko afala yatadabbaruuna alqurana am ala ak aqfaluha boole koo sunna sam ñu waxoon ñu topp ko comme ni nga xamante ne si moom la ko doon defee ñun dey loolu nañu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul jàngal ci ay taalimam mooy leen rajaau jannatin bila taatin li sunnati lmaahi garurun yati képp ku yaakaar ni war ngaa am àjjana ëllëg te rasulullahi yu royoo ko ci ak sunnaam nam ko doon doxale nee na da ngay war sa bopp waaye ëllëg moom bul yaakaar loola kon buntu jullit ab buntam ci yàlla subhanahu wa taala mooy nga topp sunna su yonente bi sallallahu la mu la jàngal ci alquranu karim nga doxe noonu noonu la salafu saalih sahabatul kiram ridwanullahi taala alayhim ajmain daan melokaano ci ñiy ragal yàlla dëgg yàlla yonent bi sax alayhi wa ñoo jox juróom-ñaari mbindeef nee na yowmal qiyaam dana metti mettiwaay goo xam ni yàlla dana fa def mbaar mbaar mu sedd guyi mu mel ni lu nu climatisé xeeti bànneex yépp am fa laata ñuy régler nit ñi waaye nee na mbaar moomu day juróom-ñaari xeet maanaam juróom-ñaari doomu aadama ñoo xamante ne si bu nu melokaanee melokaan woowee ñoom day dinañ dugg ca mbaar moomu ba ca jiitu mooy njiit lu maandu njiit nag suñu ko waxee mooy fa mu gën a kawe ba ca boroom kër ga nekk ca biir këram loolu mooy njiit masalan tey su fekkoon islaam dafa am amiir nga xam ne moo jiite jullit ñépp ci àddina bi kooka bu maandoo doxal ak maandute te maandute mooy kenn ku nekk nga jox ko àqam ca ba kenn ku ne nga jox ko àqam ca na mu jotee te lanu la dénk nga yore ko yorin woo xamante ne si yorin wu rafet la ba bu ëllëgee boo koy delloo wala suñ koy jël ci yow lenn du ca manqué lenn du ca yées loolu mooy njiit lu maandu ca lay bokk looloo taxoon Omar ibnul Xataab ba mu jëlee xilaafatul rachida doon xalifatul muminin mu jëfandiku woon baatuk maandute ak di ci dox ak àggoon na ci sax ba bu conseil des ministres masaana am sunu taalee làmp yi nga xam ni état bi moo ko moom ba nu conseil ba pare ba nu waxtaan seen biir ba war a dem mu des nag seeni waxtaan yi bopp day faylu làmp yooyee parce que kat danaan mbirum julli ñi nag noppi nañ ci ñun suñu yëf yëfi bopp la nekk kon nag kenn ku ne làmb poosam ñu dem jënd lu ñu fi téye waaye nag li jullit ñi moom duñ ko waxtaane kooku foofu la ak àggoon ci ak maandute daan wax ni dinaa góor góorul sama kemtalaay kattan ba fépp fu jullit nekk lenn lu mën a gàllankoor ab jullit te muy jóge ci man du am nee mbedd yi sax xeer woo xam ne dafa faqastal ab giléem ba dagg boo ëllëgee man ya man la ko yàlla di laaj ndax man may njiit mi te man maa war a defar loola kon loolu ab mbind la mu mag a mag a mag ci képp koo xamante ne si njiit nga jiite nga am réew wala nga jiite ab gox wala nga jiite jullit ñi wala nga jiite kër wala nga jiite ab quartier wala nga jiite ab marché ak foo mën a jiite nga nekk fa ak njiit xamal ni ëllëg yaa ngi gàddu responsabilité bu mag a mag boo xam ne yàlla dina la ko laaj ana nan nga ko jiite woon kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi la yonent bi sallallahu wax juróom-ñaar yooyu ka topp mooy waxambaane boo xam ni dafa sosu ci jaamu yàlla subhanahu wa taala nga xam ni jamono ji làmb xewee jamono ji football xewee jamono ji musique bare jamono ji fecc bare moom mu jël loolu lépp teg ko fële te jublu yàlla subhanahu wa taala ko ragal namm ko yaakaar nango ko jaamu di jóg guddi di jaamu yàlla subhanahu wa di jóg guddi di jéggulu sunu borom te di ko tuub mooy ñi alquran di wax ni wa bil asxaari hum yastaghfiruun nee na kooka waxambaane boobe bokk na ci ñi yàlla di keral ëllëg dafa am saxaaba boo xam ne gune la woon ñu di ko wax Mus'ab ibnu Umayr mu nekkoon xale bu tuuti Mus'ab ba muy nekk Makka way juróom wu jigéen dafa amoon alal lool sax yére yi mu daan sol parfum bi mu daan tuuroo Mus'ab fu mu mosaan a jaar suba ba ngoon boo fa jaaree di nga xam ne Mus'ab ibnu Umayr jaar na fi waaye ba mu déggee woote bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dugg ci biir xolam la muy doon waxambaane lépp ak la muy doon gune lépp dafa tayle loolu lépp dem wuy ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax moom la yonent bi yabaloon yas yasrib muy madina ba muy laata muy tudd yasrib ngir mu dem fa tracel ko teenee ba jàngal ña fa nekk alquranu karim ba bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dugg madina daa ñëw fekk saxaaba yi ñëpp ak ña fa dëkkoon di ko teeru ndax booba fekk ne lislaam dugg ci ñoom Musab ibnu Umayr moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yabaloon loolu nag waxambaane mu am pas-pas mu dëggu mu nangoo jaamu yàlla moom moo mën a am lu mel noonu boo xoolee ci sunu réew mii ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay mag naan mag ñi te Sëriñ Tuubaa yaroon leen ba ñuy gor ay ay ay ay dëkk boobu ay xale yu tuuti leen ay waxambaane yu ndaw lan maam Thierno Ibra Faati ban koy dénk mission bi ko Serigne Touba joxoon lépp booba boo doon xool ci lim am ci at matul ñeen fukk nga xam ni kon te liggéey na liggéey bu rëy boo xam ni ba sëriñ bi ñëwee jëlul loxoom teg ci gémmiñam lu dul gërëm ko sant ko ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñoo xam ni suñ leen doon lim du jeex kon lislaam dafa yàgg sukkandiku ci ay ndaw yonent bi daan na wax ni bi ma commencé woote xaalafani shabab wax xaalafa ne suyuux waxin la nee bi ma ñëwee rek gune yi ñoo ma daw wut si moo tax bokk na ci li gën a dëgëral lislaam mooy gune yi Musab ibnu Umayr Ali ibnu Abi Talib Zayd ibnu Haarisa ak ñu mel ni ñooño njàmbaar goo xamante ni wane woon nañ ko ci lislaam ñetteel ba mooy waajoo xam ni xolam lépp mu ngi ko aj ca jàkka ja bu fa génnee day mel ni aw naqar la fay génne ndax su duggee ci biir jàkka ji rek day yëg ak mbégte loolu nag ulamaul xadiis yi dañuy wax ni qalbuhu muallaqun fil masajid loolu ñu ngi ci jublu julli mooy ne su jullee suba xel mi day nekkat julli tisbaar saa su nekk du am jàmm day xool montre bi rek ba xam waxtu jot na xam nga ni ku mel noonu ragal na yàlla ragal goo xam ne du sàggane mukk julli du bokk ci ñi yàlla di wax ni euh, ñi am na ñoo xam ne dañuy sàggane julli walladina hum an salatihim saahuun kon ñooña du ca bokk kon kooku bokk na ci juróom-ñaar ñi nga xam ne ëllëg yàlla subhanahu wa taala dina leen keral ndax yàlla day wax ci alquran ni képp koo xam ni poñatub àdduna wala sab liggéey teele na laa jox yàlla julleem googu na xam ni loola lu bon la lu baax la na ko daw julli saa bu jotee rek lépp lu nit ki daan def daf koy bàyyi te jublu ci ñun de loolu la ñu yonent bi sallallahu jàngal sëriñ su baax si nga xam ne ñoo fi nekk ñu leen di roy ndax danoo royoon yonent bi ñoom it loolu lañ jàngal noonu la gis histoire di ko nettali ci ñoom nanu fonki woon julli mu jaral leen sax bay wàcc ci ndox wala di julli ci foo xamante ne si ab manding la lu ne mën na la faa waaye nag nga jox yàlla rek xam ne yàlla moo mën a lore te moo mën a jariñe keneen ka ci topp mooy ñaari nit ñoo xam ni yàlla da leen a boole ñu soppante ngir yàlla rek nag lenn ni àddina taxut waaye da koo sopp ngir sunu borom nga xam ne ci la ñuy ànd te bis bu ñuy tàqalikoo it ngir yàlla moo tax ñuy tàqalikoo tàqalikoo gi mooy lan mooy mu dem ba kenn ki jàpp ni kii kat ma nga féttéerlu ma nga jóge ca diine wala mi ngi bokkaal ak suñu borom subhanahu wa taala wala mi ngi def loo xamante ne si yonent bi jàngaliw ko alxuraan jàngaliw ko mu bakkoo mu hijra ko ngir yàlla rek tax waaye du la nen kon ñooña tamit yonent bi nee na bokk nañ ci ñi nga xam ne yàlla dina leen keral ëllëg juróomeel bi mooy waa joo xam ni daa toog fu kenn nekkut moom rek moo fa nekk ak borom bi subhanahu wa mu fàttaliku yàlla xool boppam ni ko yàlla bindee xool moom mbindee mi mu doon xool li ko wër ni mu xereñee ni yàlla subhaanahu wa bindee asamaan si ni yàlla bindee suuf ni yàlla bindee moom jëmmam ji jox ko façon jëmm gi nga xam ni loolu ka ko def créateur la boo xam ni boo doon xool scientifique yi mënuñoo créer lu lu mel noonu boo doon woo ingénieur yi gën a mag mënuñoo defar lu mel noonu nee na xelam dem ca yàlla mu bënn bët yi di jooy nga xam ne kenn nekku fa defu ko fu mbooloo nekkee ñu ni kii kat dafay gistal wala dara nee na kooku bokk na ci ñi nga xam ne ëllëg yàlla dina leen dugal ci kër yooyu juróom-benneel bi mooy waajoo xam ni as ndaw su jongama ju mel ni mu war a mel ci wàllu taar wala boog mu mel ko ci wàllu daraja wala ci wàllu askan def ko woo ci boppam fu kenn nekkut nga xam ni moom rek ñoom ñaar ñoo fa nekk ak yàlla waaja wax ne ko inni axaafu llaha rabbal alamin man day dama ragal yàlla subhanahu wa taala noonu tam la valable ci soxna soo xam ni daa wéet ak waajoo xam ni moom it am na lépp ci daraja am na alal am na daraja mu gaaral ko alal jeg daraja ji pour bëgg séq ak moom loo xam ne yàlla nangu ko ndaw sa ne ko inni axaafu llaha rabbal alamin nee na ñoo kooku it bokku na ci ñi ëllëg yàlla di di keral te ku ne xam na ni ku mel ni sayduna yuusuf alquran nett la nañu la mu doxe woon ak imraatu aziz muy soxnas buur ba ba ko soxna sa woowee ca boppam ba ko soxna sa woowee ca boppam lu mu ko wax dani ko man dama ragal yàlla lii duma ko def man day mus maa ngi muslu ci borom bi subhaanahu wa kon loola tamit nanu xam ni ca la ca la bokk juróom-ñaareel bi bi nga xam ne moom la ko tëjee mooy waajoo xam ne daa yëkkati sarax walla ak ndimbal gis mbokkum jullitam moo xam ni da ko soxlawoo mu yëkkati ko bokkal ko ko te kenn yëgu ko defu ko ngir ngistal waaye daf koo def ngir yàlla rek tax mu def ko nee na kooka it bokk ca ca ñooña li tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dem sax ba misaale bañ a def loolu kenn di ko yëg nee na bis boo koy joxe sa loxo càmmoñ bi sax bu mu yëg ni sa loxo ndejoor joxe na ko loolu meloon la pour bëgg a wax ni nit ñi bu muy buy buy def lu baax na ko nëbba nëbba nëbb nëbb nëbb ba kenn bañ koo yëg lu mu man ci nëbbu ko na ko def waaye bu ko bu ko fésal àddina bi yépp di ko dégg wala di ko gis diwkat su du woon mën këram cin du fa tàkk diwkat këram gi nii mu mel maa ko ñëw moo ñëw fii gaaral may soxlaam ma jox ko nangami toni ciment wala ma jox ko nangam loole dafay yàq ab sarax ndax borom bi subhanahu wa taala wax na ko wala la wala tubtilu sadaqaatikum bil manni wal aza li ngeen saraxe mu génn bu leen ko yàq ndax tuyaaba la ju baree bari bari joo xamante ne si kenn xamul ni mu toll alxuraan daf ñuy leeral ni ëllëg di nga gis koo xamante ne si bu duggee ci biir bàmmeel lu sëñ Tuubaa doon wax ni wa argabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya maa alxayaati walaw suwayatan faqat li yaamalu saalihan loolu li koy li koy firndeel dëgg dëgg dëgg muy bayit yooyu sëñ bi wax alxuraan moo koy gën a firndeel ci nan mooy bu nit ki faatoo ëllëg yàlla bu ko nee ma delloo wàlla àddina bu ma la fa bàyyi woon tey jii looy wax looy def lan ngay def rek ñëwaat du wax julli lan ngay def ñëwaat du wax nat euh, jàng alquran de waaye li muy wax mooy fa asaddaqa fa asaddaqa damay saraxe ñu ni ko lu tax mu ni wa akun min as-salihin ndax ma bokk ci ñu baax ñi ndax booba yàlla wan na ko manazil ak darajaat saalixiin ni mu toll ndax joxe ak def lu baax rekk moo mën a yeggale nit ki léeg-léeg ci daraja yu mel noonu dañu nettali ci ci xissa xabar waajoo xam ni dafa dëkkoon ci benn gox mu dëkk ak nag koo xam ni loxoom jotul gannaawam ba pare màgg na màgget na àgg na ci âge foo xam ni mënatuloo liggéey te doom yu ndaw la yor waa ji dëkk ak moom saa bala moo xëy bu ne dana indi ceeb diwliñ ak la koy togg lépp ak mburu teg ko ci buntu kër waa ji kon dina dem léeg-léeg waa ji di yër nu ba xam kan moo mën a def loolu waaye su ko tegee rek da koy wan ginnaaw du ko gis su ko waa ji woowee du ko du ko du ko faale moom it su ko rombee su ko nuyoo moom moom faqir bi su nuyoo waaj ji du ko fay ba yàlla dogal jamono nit kookee génn àddina ñu dem dëj ba xumb lool nit ñi ñëw fa ñu ko ñaanal ñu ñëw ci faqiir bi ni ko waayow sa dëkkandoo bi génn àddina loola tee nga dem fa mu ni koo xam ni duma nuyu su ma ko rombee nuyu ko duma ma fay kooku lu may wut ci ab dëjëm waaye ñu toog ci ay fan la daan ñëw ca këram ñëwatu fa gisatu ko ba bis doomu ko am alal joojee daan def lu baax way juróom mu jigéen yabal ko ni ko la sa baay daan dem def demal nga def ko yóbbu fa lële mu dem yóbbu fa dajeeg faqir bi faqir bi di wax ak moom wuyu ko mu poñe ko ni ko yow lu tax nga mel ni sa baay su ma ko musaana nuyu duma fay xale bi ni ko ñun duñu dégg li nga daan wax lépp sam baay ko xam lii muy defit yàlla rek moo taxoon mu di ko def mu bënn bëri di jooy nga xam ne ko nit ki léeg li ñuy bëgg ci moom dëgg dëgg mooy di joxe te kenn bañ koo yëg waaye li yàlla gën a bëggul te yonent bi sallallahu alayhi daan ci wax nit ñi nañ koy moytandiku mooy ngistal mooy di def loo xam ne dafa da bëgg nit ñi yëg ko tax nga di ko def wal iyaazu billah yàlla nañu ci yàlla musal alhamdulilah mbokk yi xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa wax juróom-ñaar yooyu yépp ñu ngi nekk ci daairatu ragal yàlla subhanahu wa taala ndax njiit ma su ragalul yàlla du mën a maandu ka jiite su ragalul yàlla ci lan ko dénk du mën a maandu gone gi tamit su jaamu yàlla nekkul ci moom su ragal yàlla nekkul ci moom du mën a jaamu yàlla subhanahu wa ba àgg ca ka doon joxe ngir yàlla kon ñu xam ni jaamu yàlla walla ragal ko dafa war a nekk ci ñaar mooy moytandiku yàlla léeg nga dégg way jur wax doomam ni ko moytuma moytuma boobu mën nañ ko tekkee ragal ma waaye way jur wi jubluwu ci doom ji ragal ko ba fu ko séenee daw waaye daf cee jublu mu ragal ay tereem ko bu baax a baax te lim koy digal mu di ko def loolu taxoon euh, cheikhul xadim di wax ni laa tarju aw taxaf siwa mawlaaka fashkuruhu xiinan lil huda hadaaka ki nu war a ragal war koo yaakaar kenn képp la muy kan mu yàlla subhanahu wa taala du nu yaakaar mbindeef ak darajaam du nu yaakaar mbindeef ak pouvoir ndax boo ko defee rek génnee nga yàlla ci sa bopp moo taxoon sëriñ bi wax nañu wala tamit li gayrihi min al watar boo amee soxla bul jàpp ni mbindeef mën na koo faj man ngaa dem nag ca mbindeef mooma yàlla subhaanahu wa taala jaarale ko ca moom mu dimbali la waaye lu jiitu nag da nga yaakaar yàlla ci sa soxla sa nga am ndax yàlla it nag du wàcc di tàllal loxo kenn waaye lu am daf koo jaarale ci biir nit ñi moo taxoon moo xam ne wa taawanu ala al birri wa taqwa da ngay yaakaar yàlla ba noppi nag ni ah maa ngi dem seeti imaam xaadim loo maa ngi ñëw dem seeti ji ko ci sama soxla si nga gaaral ko soxla sax moom it bu ko mënee mu def la su ko mënu mu teg la ci aw yoon woo xam boo ko teggiwut yoon woo ba ca jaaree yàlla subhanahu wa mën na koo mën na koo faj nga xam ni kon yaakaar ga nga yaakaaroon yàlla moo la yóbbe ca moom ak mbaax gu mu am nga xam ni du wili pande say soxla lu mu ca am dana ko ca def bu ko mënut teg la ci aw yoon waaye nag bul dem ci kenn koo xam ni da ngaa jàpp ni daraja ju mu am moo tax nga ñëw ci moom sukk ngir yaakaar ko ñooñu day mënuñu dara ndax yàlla moo man lépp moo taxoon sëriñ bi nii wala tasir li watarin lil umara sa soxla bul ko yóbbu ca njiit ya ca kilifa ya kilifay àdduna yi yaakaar ni ñoom ñoo ko ñoom ñoo man lépp sëriñ bi ban ko gaaralee lu mel noonu ca waxam ja ca qaalu li yarkan lu mu wax dani du ma du ma du ma jël samay mbir di ko yóbbu ci ñoo xam ni mënalul seen bopp dara te booba tubaab yi ñoo fi nekk yor pouvoir yor doole yor alal ànd ak buur yi waaye moom jàpp na ni àddina du ci du ci wax nit soxlaam moo tax mu ni anna ufawidu ahwaali liman ajazu an xaali anfusihim ajzal masakini ku yég nit nag tànk yégul foofu doomu aadama tànk yégul foofu rek taqwaam des na euh, boole kook nag lu am nga jàpp ni borom bi subhanahu wa moo ko amal dafa amoon genn gune gu doon jàng ci daara ab sëriñ di leen jàngal ba yeewi taalibe yi mu ni leen nag dama bëgg dénk leen soo leen demee kenn ku nekk la baayam doon liggéey na ca liggéey te dugal ci ragal yàlla la muy liggéey na ca liggéey te dugal ci ragal yàlla gone yépp dem ñibbi ña fekkoon seen baay doon ay commerçant ñu dugg ca di jaay ba pare nag diggee ko comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ak ni ko alquran jàngale ci kuy commerce ni mu war a mel ña seen baay doonoon tëgg ñu dem ca tëgg ji ña seen baay doonoon maçon ñu dem genn gone gi ñëw ci ndeyam fekk na baayam faatu na bu yàgg mu ne ko damaa bëgg nga wax ma sama baay li mu daan liggéey ndax ma liggéey ko ndax ka sëriñ bi dañoo wax ni kenn ku nekk na dem liggéey la baayam doon liggéey te ragal ca yàlla ndey ji bañ ko koo wax mu sonn ci lool lakkal ko ci ba yaay ji ne ko sa baay day sàcc la woon sàcc la daan liggéey mu ne kon baax na dem jàngi ji sàcc ba man ko maîtriser ko clé yeeg lépp mu xam ko ba bi mu ko mënee am bis guddi mu dugg këru dëkkandoom nar faa sàcc mu fàttaliku la ko sëriñ bi waxoon ne ko sa liggéeyu bàyyi waaye nag ci boole ragal yàlla mu ne ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal nee na képp ku gëm yàlla gëm bis penc ëllëg bu lor sa dëkkandoo te lor dëkkandoo bokkul ci ragal yàlla te lii bu ma ko defee yàlla mu may gis kon daal di koy bàyyi génn bi mu génnee dem lu sori dugg ci ak kër waaye kër ga ay orphelin ñoo fa nekk orphelin mooy ñi amul way jur ñi seen bàyyi génn àddina ba mu fa duggee mu fekk fa alal jeg lépp ba mu ko waree jël xelam dem ci li ko sëriñ bi waxoon ni ko looy liggéey na ci boole ragal yàlla mu ne ah yàlla day tere na lekk alalu jirim ndax moo ko wax ci alquran nee na alalu jirim moom na ngeen ko bax ndax képp ku koy lekk yaa ngi lekk sawara mu daal di koy bàyyi mu jigéen mu dem ca koñ boo xam ne dëkku fa waaye déggoon na ni amoon na borom alal ju bare bare ju fa dëkk ba mu fa duggee ca biir kër ga dugg ca fa alal ja nekk mu fekk alal ja jalu ak kayitu facture yeeg euh, livre yeeg lépp li nga xam ne moom moo loolu la commerce waajo di bind mu nekk fa di dajale kayit yi mu ne kii dee xanaa daawul génne azaka ndax gisuma ci këyit yi fenn fu mu génnee wàllu azaka xaaral ma nattal ko azaka ji ba noppi soog a def li may def ku xareñoon la nekk ci wàllu xisaab maanaam calcul mu calculeel ko azaka jéeg lépp tombeek fajar jot mu ni daal lépp looy def ba julli jot sëriñ bi neewoon na nanga ko bàyyi te yàlla dem julli ci mu génn di wut ndox lampe ba mu taaloo nag facture yam fa tegoo nag calcul yëpp borom kër ga yeewu dugg gis ko bi mu ko gisee ni ko yow looy def fii mu ne ko nan julli ba noppi bala ngaa wax ndax waxtu julli jot na waaye ne ko dama lay laaj lan ngay def fii yow lan lan la mu ne ko ab sàcc laa waaye nan julli ba noppi ba nu jullee ba noppi laata ñuy julli sax dañuy borom kër gi yaay jiite ndax njiit moom borom kër a koy def mu dugg mu jiite ba noppi mu ne ko li ma fi indi woon daal mooy jël sa alal waaye nag xool naa ni daa mel ni daawoo génnee asaka mu ne ko waa dëgg la de lu toll ak juróom-ñaari at génneewu ma ko mu ne ko calculer naa lépp nag mu ngi nii lii mooy asaka ji waaye lii mooy alal ji li ma gisul woon sax moo tax waaye damaa nar na sàcc waaye yàlla subhaanahu wa taala xam naa ne mu ngi may gis waaje ne ko yow fan nga dëkk mu wax fi mu dëkk lépp mu ne ko nit ku baax nga damaa bëgg nga ñëw jàppale ma sama liggéey bi ndax awma kenn ku ma jàppale te yor naa fi gune goo xam ne sama doom la maa ko yar ku baax rek laa doon wër ku ragal yàlla ngir jox ko danaa la ko may kon la yàlla waxoon ni wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min haysu laa yaxtasib lu wér la lu dëggu la te ki su ragal ya su ragalee yàlla lépp da koy ragal Sëñ Tuubaa waxoon na ko ni wa haysu maa taxaf ilaahaka al ahad yaxafka min xawfikahu kullu ahad loo ragal boo ragalee yàlla rek lépp lay ragal dafa amoon saxaaba bu tudd Abdullah ibn Xuzaafa as ci saxaaba yu mag ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaroon la bokk mu nekkoon ku ku am solo bi Seydina Omar yore xilaafa gi fekk boobu Muawiya mi ngi Shaam bi Rome yi sonale julli ñi lool Omar dafa bind leetre lettre Muawiya ni ko bëgg naa nga préparer armée bu dëgër ngir dal ci kaw Rome yi ndax li ñuy sonalee jullit ñi metti na te faaw nag ñu ñu fipp ñu fayu te nag armée ba na nga jël Abdullah ibn Xuzafa asahami def ko ca bopp armée bi Muawiya def noonu ñu attaqué Romain yi gañe leen waaye la la taqaloon la ñuulaloon soo mi mooy Hiraq la min doon xeexal nga xam mooy buuru Romain yi ndax Abdullah ibn Xuzafa dafa nekkoon jàmbaar joo xam ne même lettre yi yonent bi daan bind ci buur yi ci ñi ko daan yóbbu la bokk waaye ku mënoon a kaf la nag ndax da daan reetaan loo yonente bi sallallahu alayhi wa bi bi guerre ba jeexee ñu jàpp ci jullit ñi lu ëpp quatre-vingts malheureusement Abdullah ibn Huzafa bokk ca ñenu jàpp te Hiraq la nekkoon buur bu metti ci kaw jullit ñi kon xam nga ni ku mel noonu doon wër saxaaba yi ngir jàpp leen ngir fitnaal leen bu jàppee lu toll noonu ci ab lim ak seenum njiit ma doon jiite armée bi xam nga ni kon dana leen fitnaal dana leen mettital waaye ragal yàlla gi nu am ak yaakaar sunu borom bi subhanahu wa taala sunu dégloo xissa bi da nga xam ne moo leen di génne ci lu ne bi ko Hiraq la jàppee tëj ko ci benn prison boo xam ne dafa wax gardien bi ne ko lépp luy xeetu mettital ak xiifal ak maral bëgg naa nga def ko ko ngir mu génn ci diine ji ñëw fekk suñu ñun gardien bi def loolu du ko jox mu lekk du ko jox mu naan ba mu sonn loolu mu dellu ca buur ba ne ko ah sa prisonnier bi day sonn na de te fi na nii boo xefee dina dee mu ne kon jox ko yàpp mbaam ñu indil ko ko ba mu koy indilee teg ko Abdullahi ibn lekk ko ba ca ëllëg sa gardien fekk ni ko lii boo ko lekku da ngay dee mu ne ko ñun suñu diine moo ñu araamal ñu lekk lii dum ko ko laal mu delluwaat ci buur ba wax ko ko mu ne ko ñii de ni leen yare ka ma dégg ni moo leen yar yaakaar naa day mu dee moo ko gënal mu lekk loolu waaye jox ko lu mu lekk rek mu jox ko leneen lu dagan mu lekk ko di ko mettinal ci ci côté boobu ba mujj gi mu ni ko indil ma ko ñu far ko rey su fekkente ni nungut a génn ci diine bi bi ko xiraq la woowee ni ko eh, dama bëgg ñu pandaral ma ko te nu jël nag ay jamkatu ay xeej ñu taxaw fële ñii diir bopp bi ñii diir dënn bi ñii diir biir bi ñii diir euh, naq bi ñu jam ko foofu tàmbali jël benn saxaaba def ko lu mel noonu ci kanamam mu di ko gis ngir moom mu dellu ginnaaw ci diineem ji abdullahi ibnu xusafata gën a ànd ak ragal yàlla ak gëm ko ak yaakaar ko ëllëg ci la yàlla waxoon ni bul jàpp ni ñi nga xamante ne si danoo dee doon ay shahid dañuy danoo dee rek kon ne waaye ëllëg yàlla mu ngi leen di wërsëgal ci seen bàmmeel delluwu ci ginnaaw xiraq la jaaxle ni man nit ñu mel ni xawma fu ñu leen tàggate ak ban formation la am tekkil leen ma ko ñu tekki ko mu ne ko wet gu ne naa ko ci yow waaye nag nanu jël cin baxal ko ba mu ba mu bax ba degré bi ñu yàpp ko ca ban ko defee ñu jëlaat keneen def def ko ci kanamam abdullah ibn xuzafata jooy ñu ne ah kon day mbégte am na daa mel ni day dana dellu ginnaaw ndax kat ma ngay jooy bi ko buur bi laajee ko lan ngay jooy mu ne ko damaa xam ne sama sama bakkan bii man képp te ñaanoon naa yoon ñaanoon ñaan naa yàlla subhaanahu wa taala ma am juróom fukk juróom ñett fukki bakkan yoo xam ne lépp ci nii lan bëgg a dee ngir ñu mën a am daje sunu borom su ëllëg ndax yàlla dafa ne ni fa man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan salihan wala yushrik bi abad rabbi ahadan ñàkk dugg ci shirk boobu dama dama koy yéene woon am juróom-ñett fukki bakkan waaye boo reyee sama bakkan bi benn rek lay doon mun ko loolu lay jooy xiraq la ni ko kon kii mënaluñ ko dara waaye nag kaay nga fóon sama bopp bi ñu bàyyi la nga dem Abdullah ibn Huzafa xool boppam ni mu boo mu ni day sama jëmm ji foon bopp kii rek tax ñu bàyyi ma bàyyi waale jullit ñi daanaka jar na ko ci noonu la ko defe yonent mu mu fóon boppam ñu libere ko mook ñamu àndaloon mu ñëw Seydina Omar ñu nettali ko lépp Seydina Omar digal saxaaba yëpp ñu foon rasu euh, Abdullah ibn kon ñooñu ni nu meloon ci ragal yàlla kawe na kon yàlla ñu yàlla def ñu bokk ci muttaqin yi yàlla ñu yàlla defal jàmm defal ko ci mii réew suñuy kilifay diine suñu borom subhanahu wa taala dëgëral leen taxawu leen guddal seenu fan ku mel ni cheikh mouhamadul muntaka bachir yal na yàlla kattanal ko dëgëral ko may ko sabaat ba li mu naar ci lislaam yàlla may ko mu àggali ko ba naan la leen ñu fe ànd kook moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ